baax na ma ñëw euh, am ma dem te ñëwaat maa ngi ñëw du ma yàgg a ngi ñëw ah waaw baax na kon xam naa ma dem ñëw te incha allah ah, ah. moom wax nga dëgg di incha allah yàlla baax incha allah ne mass day am suma yalla baax na duma nuyu kenn bu yalla ñepp ni ñun ah réew mi am jàmm ndax seet ku nekk si état boobu nga wax dëgg yàlla ba ñuy dem takk masque yi di woo seet xam ku nekk doo nuyu kenn bu defee kaw naa virus mën fay jóge waa xam naa duma yàgg mën na ñëw parce dem te dem te dem te man dem kër gi bu baax kër gi bu baax waaw maa ngi def. bu problème. loolu la ñu boole bu soobee. waaw am am boo doon heure bii mooy kon koor la mbaa yi loolu nañ waaw naa si jaaral fii baay ak ñoom bokk na baay xaar jàpp kilo sax kilo allo eh boss allo waa boy waaw lu xew ma ne xaay koor gi maa ngi liggéey foofu fu ma mën a dóori jéem Vaya, ha umatara. Vaya, la la yan jom. Jalan kan chan bai jalan. Sa wiki jalan da. Me gem ko de gam bala me no, ni de gam, ni gam de na. Sa tem ta fi dawo de. Adu je je, ni de ke o de. Wow. Ayo wa, yeah. couldn't buy. It's all right. Right. Yeah, bro. Right. Anak ko lari, bro. Ano? Wow. Ano ka rin? Ano ko rin? Hindi ka ba? Bayan,

asili dog makan semua kalau moo xam bam na dama nga xam E baax na nga ni kan abdu mon fils Sala. même bul wax. yow bul wax nee na rek bul wax ah Abdou. yow yaa invité ci kër gi yow. li ma dem lu ma la waxoon. waaw waaw waaw wax nga dëgg eh yow loo wax loolu li ma la waxoon loo xam ne loo wax. ah léegi. mais ba yéen lu leen di wax. lu leen di wax dañu soog a. yaa ngi di ñëw yaa ngi di ñëw yaa ngi di ñëw doxaar la ngeen fi nekkee weer digg digg weeru digg weeru koor gi ab yow nga invité sama kër ñoom la mën sama kerja? digui wéru papa bari na eh eh eh ana nga nopi digui wéru ko ah ñu nekk fi ñu wara wor muskala fi ah ñu wara wor la ñu gënon wor ñu may sax seen kanam ni kanara mampo man yeen yeen yeen mo sum sum mene ko sum lo sum sum ay yéen ay yéen xaa corona bi yéewaleen ko xaa yéewaleen lii lëmb réew yi lii corona feebar bi maa ngi nii bi may génn masque bi dama ko takkoon nii rassemblement bi dañ koy tere duma ko yor nag man duma yor feebar yéen ñi yéen yor feebar rassemblement ah, bi ay góor yi fii lu may wax ak yéen sax oustaz laa jëm yow moom naa rëbb rëbb saa la yóbbu ñu tëjteel ma la ba nga nooy ba sa yaram bi nooy nepp nepp oustaz laa jëm amul lu may wax ak yéen amul lu may wax ak yéen jugal jugal deux mille daal may deux mille bu ma fekk nijaay kii na ko yóbbu daaray kokki waaye nijaay